Ibn Serigne Bara Mbacké Mangi ngi Kadunyo nuyo ak kaddu ziyara yu amul app di tek ci sa loxo ginnaaw ba ma la nuyo ziyara la tek ko ci loxo njabootu ma bëgg ci ràññee sëriñ Muntaxa Bachir Mbacké ràññee ci ci mag ñi sëriñ Sidi Abdoul Ahad Mbacké sëriñ Abo mu sëñ falu euh, di nuyu itam mbooleem euh, njabootu sëriñ Touba yi fi teew yëpp yaakaar naa ne bu ma tuddee ñenn ci yéen nuyu naa njaboot gi yëpp ndax yoonu murit ndigal lay doxe te boo tuddee kilifa yi rek mel na nu tudd nga ñëpp kon maa ngi yëkkati kàddu nuyoo yooyu ak kàddu ziyaara yooyu ci bés bu màgg bii dina la ñaan nga tegal ñu ko ci loxo sunu sëriñ di xalif général de Mouride sëñ Sidi Moxtar Mbàkke yal na fi yàgg te ànd ak wér mu ñaan nga jottali ko nuyoo yooyu ak ziyaara yi yàgg nañu ñëw ci bés bu màgg bi di bésu diine lislaam muy màggalu Tuuba nga xam ne tey dafa wër àdduna màggal gi nag bu jotee jaadu na président la république ak mbooleem charte yi ci réew mi ak kuréel yi ñu ñëw ba si Serigne Touba andil ko ziyaara ak ndokkeelu réew mi rawatina nag bu fekkee dañ koy solowoo doon ko def nag lu jiitu lii kon ñëwaat la rek yeeslu ñëwaat fàttalikuwaat sunu bopp ci wàll wi ñu yàlla dënk ak taxawaay yi nga xam ni fas yéene naa ko taxaw jàppale ko sëriñ bi ci liggéey bi ko sëñ Touba sant loolu nag bi may ñëw ren ji yàlla may nañu lu bari si lu ñu yëkkati woon rawatina Ila Touba ci laa jaar ba daanaka ba ñuy yegg si Thiénaba te itam ci diggante bi am na yeneeni dog-dog yoo xam ne tronçon yu yegg mu mel ni kon ñu fi yàlla bàyyi bi déwén incha allah képp kuy jóge ndakaaru di màggal si wala jóge kawlax jaaree ko njaareem walla jóge foo mën di jógee danga mën jaar ci yoon woowu ñu tuddee Ila Touba te nga xam ne tey mooy yoon bi gën a màgg ci biir Sénégal en tant que autoroute yéene yi bari na du fi nekk di ko lim ndax lenn lu ci ne solo askan wi la te taxawaayu gouvernement bi mooy di taxaw ci soxla askan wi kon waxuma rekk Touba ak mbakki ak li ko wër nga xam ni ci gox yu yu wër Touba du ko dalee ci Daaru Salaam Typ ba ci Madina ci Dendey Guy gi wala Touba Mbul ba ci Ngay Kayel Njumaan Misira Touba Fall dalangaabu Sadio ba tey ba cekkeen muy lépp li nga xam ne moo war Touba tey am na ay liggéey ñu fa def moo xam lii ci ndox mi la jëm wala lii ci courant bi la jëm wala lii ci piste de production wala boog ci wér-gu-yaram kon loolu boo gisee ma koy firndeel rek mooy di leen fàttali ak di waxaat fii lépp lu ma jàppoon tey laa ko gën a mën a jàpp ngir jàppale sëriñ bi ci liggéey bi nga xam ni moom la ko yàlla sant te mu toogal fi sëriñ Touba di ko mottali kon fu mu ci gestu rek danañu ci fekk ndax lu jaadu lay doon Touba ku gis ni mu toll tey ci yaatuwaayu dëkk bi ci population bi nga xam ne ah besoin yi bari na kon commune bi ak département bi gouvernement bi dina taxaw seen wet maa ngi. sant itam porte parole sëñ Bassirou Abdou khadir mbacke bi nga xam ni sëriñ bi moo ñu boole muy dox suñu diggante di sant njabootu sëriñ bi yëpp ko tàmbali sëñ mustapha ak ay rakam ak kilifa yi nga xam ni tey ji ñoo topp si ginnaaw te ñu mandargal njabootu sëriñ Touba kon daal ñëw nañu màggal si bokk ak xéewal yi fi am ci màggal gi ñëw nañu itam ziare si leen sant leen gërëm leen kon xam naa wax ji du jar ma koy guddal ndax waxtu waa ngi jege waaye ma santaat rek ñëpp du sant nag sëñ Basiru waaw bi nga xam ne moo tey jël message bi fas na ko jottali sëriñ bi moom itam ñu koy sant di ko siyaara di sant ñëpp. di gërëm ñëpp di gërëm itam population bu Touba ndax bi ñu ñëwee ba léegi ci yoon bi teru nañ ñu niñ ko faral di defee kon ñoom itam bu ma yegsee fii ak responsable yi ànd ak ñoom maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam